délégué euh, ñi ñëw tuuti revenu tuuti fàttali téléspectateurs yi la doon seetaan xam ne yow yaa amoon coow je sais ak keneen koo xamante ni day fréquenté ki nga xamante ni mooy wali Ballago Seck ngeen am coow ak ku ñuy naan liw faramaare ba tax ñu yóbbu leen prison lan nga ñu mën a expliquer ci loolu non loolu moom bëgguma ci loolu moom dem na ko bëgguma ci. non gars yi dañ naan moo xam nga ba nga génnee prison ba tey toogoo plateau pour wax ci. mais il faut nga leeral bëgguma benn affaire daal maa koy xamal Sénégalais yi. ñu mhm. bàyyi mhm. am na ku naan Matar Diop suba teel. Matar Diop suba teel. Mhm. gis nga mag dangay am fulla ci sa bopp. te it da am benn façon dignité boo xam ne day nekk ci yow. mooy que boo xasee nekk. mag nga ni kilifa nga. da am yenn. waxal ci micro yenn yenn yenn détails yoo xam ne. Mhm. doo ci dugg. damay toog di jekk saa di gis ay message whatsapp yoo xam ne suba teel daf ma koy envoyé. mataat Matar Diop Subatel. numéro bi je crois enregistré wu ma ko sax. Mhm. mais dinaa ko génne ngeen gis. Mhm. message yi. pour teel a wax sénégalais yi. pour teel a avec sénégalais yi. ndax nit bu toogee jàpp ñaamuram. jàpp naa ne boo nekkee mag ngay responsable. te it nga am benn immature bu nekk ci yow. Mm-hmm. am na yoo xam ne danga koy dépassé. te it Matar teel dépassé wul niveau boobu noonu. Mm-hmm. ñàkk a bañ a dépassé moo waral ngay message nit ki en tant que sa rakk-rakkaat di ko saaga di ko menace de uh-huh. mort di ko wax yoo xam ne nii ko ndax kii Matar Diop teel lan moo la war ni Matar Diop Subatel yow xamoo sax ki nga amal affaire loolu la kii wax. Ah. dinaa nangam taan. voilà moom frère yaa ngi si jàmm sa waaye comme yow amoo jom xaaral leneen ñëwaat mën nga amal affaire yëfu góor jigéen yi cette fois ci avant màggal ngay dellu loo gis rek dawal. gis nga loolu délégué Amar ne ay kàddu la yu jugee ci ki nga xamante ni ci numéro 77. 77. 589. 589. 589 65 29. 65 29 d'accord. du du saagi ni nag ragal moo tax ma def ko. Mhm. waaye. damay teel a avertir Sénégal yi. Mhm. Sénégal sénégalais yi. Mhm. pour ñu xam. Mhm. man du ma tooñ. ndax bi nga déggee bi nga gisee message yi jot nga gisanteeg ñi nga xamante ne ñooy loi bi maanaam nga porte plainte wala nga dem. du ma porte plainte du ma def dara damay toog ba li ma wax ne dafa may menace lu ma gis ma ma wax sénégalais yi ne lu ma dal fii ba deux mille vingt trois. Mhm. fii ba deux mille vingt quatre wala deux mhm. moom la. ndax euh, délégué am ma xam nga yoon tamit euh, nit ñi la fi nekkal nekkal luñ fi seen bopp kese comme que jot nga menace de mort xam nga numéro bi te aussi yaa ngi def lu grave parce que tamit euh, sa numéro bi nga xamante gis naa ko gisuma ci benn tur boo xamante mën na wane ne Matar Diop suba teel la donc est doo dem fi nga xamante mooy yoon yow xamoo nga amal affaire waaye numéro bi amul tour délégué. mais moom la numéro bi la ma woowee woon téléphone. d'accord mais dama koy jàngal àdduna rek pour mu nekk benn genre boo nekkee kilifa. Mhm. da xam ne kilifa nga. Mhm. te it boo fekkee ne que da wax ne yow kilifa nga. Mhm. bëgg nit ñi respecté la. da ngay ay détails xam nga vidéo bi mu ma envoyé di ma saaga yàgg na. d'accord su ma jumul def na trois ans xaw ma deux ans. vidéo bi vidéo bi lan la. vidéo bi yàgg na Gambie la woon. ah mooy bi ngay wax ak. xam nga boobu vidéo bi soo ko xoolee xool ba xam ne vidéo bi yàgg na. la. Mhm. nga toog ba vingt le sept novembre euh, di envoyé nit ki saaga. Mhm. ci di ci waaye loolu daal nit da ngay dépassé benn. état lan lan moo war a lan lan war a mu lay saaga da ngeen jotewaat leneen wala wala problème boobu. mooy continuer ba tey ni ma ko jàppee mooy ñàkk fay la rek laa ko jàppee. parce que mm-hmm. kilifa. du du mm-hmm. du du def yenn yi daal. Mm-hmm. waaw loolu laa ko jàppee ñàkk fayda dong laa ko jàppee waaye daal maa ngi koy xamal ne ko man du ma ragal nag. doo ragal. nee na daf may booleel ay nerveux xaw ma nangam nangam. man du ma ragal. te ñooñu may booleel. na fexe ba jox leen sama numéro ñooñu woo ma. mën naa leen wax sax fi ma nekk wala ñu fekk si ma. délégué bul fàtte ne yaa ngi sursis ba tey ji tey loolu defaat leneen rek mën nga delluwaat moo tax ma lay naan euh, ndax jotoo jotul nga dem euh, dénoncer li nga xamante ne moom dénoncer déggoo ma wax la soxna si dañ mm. ma envoyé message joxe naa numéro bi ma envoyé message mm-hmm. waaw pour wax sénégalais yi. xam nga mm-hmm. ñoom luñ jóg ñu ni internet. Mm-hmm. léegi nag man ñëw naa ci internet bi teel naa leen ko wax yéen ngeen bàyyi ko xel. d' nekk ci leneen. kon mi ngi noonu benn numéro boo xamante ne 77 la 589. 65 non non du numéro Matar Diop suba teel la. boo nee na Matar Diop suba teel. moo ko envoyé message. daal di ko ci wax wax yi doy waar wax yoo xamante ne tamit ay menaces de mort la. ay saaga ndey ah, am na ku nekk si ligne bi dañ ko bàyyi mu. ku nekk di génn di yor sa làmmiñ di wax. Mm-hmm. ba coow loolu bañ fàtte ko bañ nekk ci leneen. Hmm. kon bu ma toogee ba mu neex ma ñu may envoyé ay message hmm. faaw ma génn leeral Sénégalais yi mu dugg seen nopp pour bu ma leneen dalee. Hmm. man damay jaar ci tur bi ma nekk di naq naqar nangama nàngam di may wax ki ki ma ko def kii la jeex na point zéro bu ñu demee nag ba mbirum yoon di ci am am naa ay avocat maa ngi samay ay message maa ngi sama ay ojo yoo xam ne moom ma ko defoon di ma saaga donc. Euh, Mm-hmm. man dama lay mastaw si loolu aussi dama lay si accompagner. dëgg la donc ki ñu naan procureur Aliou ndaw mm-hmm. man sama oncle la sama nijaay la. ndeysaan. Mm-hmm. comprendre moom paa sax euh, moog euh, paa Cheikh Amar xamante nañu bu baax. waaw waaw waaw man moom bu dee côté boobu moom sax man dama la fi jàppale dama la siy taxaw. donc voilà man lu jeune nga macha allah. xam nga ci Sénégal yi jeune biy dem dañuy bañ a gis dañu lay jéem a xool ñu ñuy baaree ñu yàq sa ñu yàq sa ber mais nit ki moom. nit ki dans la vie moom c'est comme ça nit ki boo nee ba ñuy wax si yow rek santal yàlla boo nee ba nit ñi ngi fexeel si yow santal yàlla quoi parce que nit ku boo toogee journée un mois weer kenn waxu si yow dëgg la xamal ni yow jar jëriñoo dara société bi dëgg la dëgg la donc donc Wally Seck ñu ngi fan ñu wax si moom Doro bi fa ñu wax si moom te tawul ñu ngi dem mm-hmm. mais yow nag comme am nga benn alerte il faut prendre tes devants mm-hmm. c'est-à-dire am nga sa avocat da nga koy jiital mm-hmm. fii gendarmerie ngi fii yoon a ngi fi et tout nga jël sa lépp teg ko. Mhm. et puis euh, nga def def sa plainte. Mhm. Mhm. sa plainte et xam nga bien avant. voilà ëllëg dara dara dara des fekk quoi. parce que bi mu foo lañ toll quoi. boo xam ni jaay doole la ko léegi jaay doole boobu na boo ci kenn fekk parce que yow yàlla mel na lay ngi. am nga ay xarit. donc ay góor yàlla ay bàyyi faal la. man xaw ma la bu baax mais suur naa la gis naa la. Mhm. boo teewee dinaa fa dee moom pour dire vrai man j'ai mes contacts. dëgg xam ne ay kilifa lañ ci dëkk bi. Mhm. Mhm. donc voilà xam nga. man ma ñu déggante ñu jàpp si. incha allah donc affaire yi moom loolu kese la kala da ngay am tam nit am tey bu amee nit am nga lépp. dëgg la Souleymane nit ñu xaay parce que nit nit am ñuy lépp. dëgg man tam balaa may wootee dama doon sànq def naa trente minutes YouTube. ñu suivre say xool xam lépp. xam ne yow nit ku nitu kese nga. dëgg la te xam nga góor yàlla nga bàyyi faa nga. Mm-hmm. yaa ngi nekk si affaire wu xëj xool yu door a mm-hmm. géey bi mm-hmm. dem ci dikk ak ñëw bu la neexee lu dul si fekk nga toog def comme yeneen góor yi jaay taar dal si fekk dugal. xam nga di jàppale nit ñi jàppale jeunes yi. loolu doon grand frère xam nga di woo jeunes yi euh, ñu mobiliser jël na comme référence ko dëgg la xam nga. voilà mais am na moom moo demee noonu boo bëggee dem moom ku nekk dina jéem a fexeel xool ñu lay bunt xatalee ku yàq sa àll ba yàq sa mais yow. du moment am nga alerte rek il faut prendre tes xam ne lii moo la wax nii ak nii laa koy defee. dëgg la donc loolu moom dañu si taxaw bu baax xam naa ni yàggul dara si fan yii ñëw semaine bi dinañ gisante. incha allah gën ci gën ci kii quoi. incha allah jërëjëf bu ragal dara quoi. dina baax dina baax incha allah. incha allah man kontaan nañ du courage et xam nga félicitation. merci parce que macha allah kontaan nañ kontaan nañ kontaan nañ. maa ngi a jël seen temps par rapport kontaan nañ yàlla na yàlla sàmm te aar la waaw xew bi euh, délégué Amar mu ngi noonu euh, wax naa la ko léegi ndax dangaa war a contacter li nga xamante ni mooy justice sinon boo ko deful euh, kii di Matar Diop suba tee mën na ko def ndax dangaa taxaw devant les écrans wax que ni carrément que moom moo la daf la menacer de moo te loolu mën na ko contredire bon bu fekk damay continuer ci li nga xamante ne mooy sa diggante ak ki nga xamante ne dama euh, ni la daf ma menacer daf laa menacer d'accord ah, mën nañu continuer ki nga xamante ne mooy Matar Diop suba lan nga lan nga jotee ak Matar Diop ba ba mu war di la envoyer message man loolu jaaxal yow xam mhm. nga tey jii mhm. bu ma la wowoon téléphone ne la dajee di nga di xam ne lépp dëgg la loolu rek menace la